bu doon man maa ko wax tey waxuma sax ma li ma wax lii sori na su ma ne woon nañ attaqué ji kër Sonko rek duma fanaan sama kër waxuma laak nag ma wax ko ba pare ñu xëy ñu attaqué ko nga xam ne réew mi nee naa la lii du justice lii sostis la la ñu jàppe Bougane Gueye Dany moo gën a moyen boo xaajee li Abbas Fall wax cent fois nga jël xaaj bu mujj bi xaajaat ko tollul ni lu Bougane wax maanaam Abbas lii mu wax rëy na rëyaay boo xam ne man ba ma juddoo ba léegi ku nekk au parti au pouvoir wax lu mel ni musta am li ma juddoo nag yàggul waaye ba ma fekk naa régime Abdou Diouf <laughs> fekk naa régime Ablaye Wade fekk naa bu Macky Sall musa gu maa dégg ku ne ci régime boo <laughs> xam ne wax dëgg yàlla wax na wax yu rëyee nii maa ngi koy doog a gis ci ne ci pouvoir mm. ma wax ministre de la justice ñëw di bind bind lu communiqué di ñu fowee ñun réew mi kenn moo ñu dul fowee parce que ñun xam nañ li xew d'ailleurs que Dakar waa yépp ku ci nekk jël nga say matukaay teg sa kër parce que procureur réagirul naa ne la ñu xam ko ku ñàkk xam militant taxaw yépp ku nekk wut nga sa ngànnaay ni ko Abbas wutloo taxaw di ko xaar nag te loolu pour ñu bañ caa egg procureur war a autosaisir léegi jàppee Abbas Fall parce que Abbas dina génn caravane ci biti nit ñu duma ko parce nit ñee ko ëpp doole fuuf nag làmmiñ la yor de bërki démb bi mu bëggee xam nga problème mu ñoom ak waa taxaw Abbas dafa bàyyi ba gaa yi di mitin fële mu yollee ko ànd ak ay nitam ne day jaar ci buntu sées ba garde yi seen ko kar ko ca rond ba ne ku fii du ngeen fi jaar kon dañoo bëggoon dem taal ko dañoo bëggoon dem taali sées ba kon ñu ne leen du ngeen fi jaar ne leen na la ngeen di aw fii moom du ngeen fi aw Abbas ne ci guddi gi nañ commencé xam nga nag sa waay euh, kër baat kër kër Khalifa Sall Gueye ku ne Abbas Fall ko mais da wax lu la neex ci ndigalam moom moo ne xam Abbas bu ne woon ba ginnaaw suba d'accord bu ne woon ba suba d'accord da ne na ngeen commencé ca guddi gi hmm. loolu la wax de ne ne d'ailleurs que dinañ yu mais na ngeen commencé ci guddi gi mbir mi kañ nga xew 4 heures du matin bàyyi nañ ba ñëpp tëddi góor yu baax yëpp tëddi 4 heures du xaj yeeg dof yi doo ngay dox. ay ay aussi. mais 4 heures du matin fekk gardien ci biir. loolu tamit jaaxal na ma quoi. mais voilà siège xaaral siège bi amul ay gardien. benn gardien rek la mën a am. kenn rek mooy gardien kër gi. doon nelaw nga ne. am nga woon déggoon ci biir loolu la Khalifa Sall wax. waaw mais non non mais siège dafa am ay gardien au moins. non mais ñun jàppuñ ne caay-caay gi maanaam caay-caay gi jàppul woon ne Abbas Fall am na bu ne mel. caay-caay gu mel ni maanaam ne ne moom Abbas dof dof liggéey fi nekk de. procureur yii ñuy def seen communiqué yëpp xam nañ mbir mi fan la. taxi ba gaare noonu nañ jël kilo taxi bi nañ dof du cocktail molotov ci taxi bi lañ ko dugaloon nañ génne image bi gis ngeen taxi baa ngoog taxaw ñu dem dugg ubbi jël seeni cocktail lii dañ ko préparé lii crime organisé la. xool nga vidéo bi sam ñii chambre des na yeneen vidéo de caméra yaa ngi ci kaw immeuble bi. koñ boobu yëpp koñ bu am sécurité te BRT baa ngi foofu man nag koñ boobu li ma jaaxal police ci BRT bi la ñuy gaare. te sécurité bi war a am foofu ci BRT bi mais ñii ba ne ñii bu ñu heure bi war na fekk ñu jàpp ñëpp. temps pas Macky Sall yii bu saan am ñi doon taal BRT bi 24 heures lañ doon jàpp ñëpp parce que caméra de surveillance yi la enquête bee demul fenn parce que mbir fii Abbas ngay njëkk a téye ne ko ana ñi nga yónni woon. moom moo ne moo ko def. moom moo ne commencé leen ci guddi gi. waaye yow ko bëgg a jiiñ déet xanaa du bëggaat mais ñu tëj de <laughs> xanaa du Barth mi demoon bi koo kooku bëgg a jiiñ man du man de moom kii moo ne yéen sama nit ngeen commencé ci guddi gi. ba pare alerte ministre de l'intérieur. mbir mi léegi yow fën Sénégal tey bu ñu dee wër ki ki taal kër saal la mais bàyyi fi Abbas Fall mais bëgguñu ko gis Abbas nii tee koo téye rek te teewoo Abbas dafa maanaam jaaragoo ci yoon bi beneen bi ci topp ministre de l'intérieur man dama leen di rappeler mois de mars deux mille vingt et un Jean Baptiste moo jiite woon force moo jiite woon gendarmerie waa Pastef doon taal Sénégal ñi ngi ci lan. sept octobre xaw ma novembre 2024 Jean Baptiste Tine moo nekkaat ministre de l'intérieur waa Pastef di taal kër jàmbur yi kooku dafa mérité ñu wàcce ko parce que maanaam kooku mënul aar kenn di yow bi nga fi nekkee gendarmerie ñi ngi taal nga ñëw yore intérieur sécurité dëkk bi ñi ngi taal léegi yow kañ nga ñuy garder ñun ñun léegi ñun yow suñu sécurité yow lañ koy dénk moo tax may wax Ndakaaru waa yëpp laa wax ku ci ne nanga wut sa ngànnaay taxaw sa kër parce que Abbas mii ma gis lii mu bëgg a jugtee nii ci dëkk bi lii du continuer dañu ko gën a yàqu foofa fi nekk nag ñu ko gën réew gën ko. alors Nata on espère bien que le ministre de l' intérieur de même que de la justice ñu jël seen matuwaay yëpp. parce que euh, parce que lu nu mel. Euh, ñu gis ko ci ci siège ñu ñu gis ko ci siège. Euh, ñu gis ko ci siège taxaw bi je pense que ne crime la comme ni ko kii waxee parce que ku jël lu mel ni toog cocktail molotov lancé ko ci biir bërëb boobu ça veut dire que war nañoo ubbi ab enquête ni mu gën a gaawee ñu situer les responsabilités parce que li nu mel. wóorul. mais Fatima euh, lii fi ngay waxee ma ma fi ngay waxee ma abordé foofu parce que fi ngay waxee ngeen fi muy daanalee dafa am solo. xam nga lii xew si li nga xamante mooy siège taxawu euh, Sénégal bi euh, mën naa jàngal sénégalais bu da nga si. cela veut dire que nous nous loolu aussi dañ si war a xoolaat cela veut dire que ñun nekkuñu en sécurité parce que tey bu nekkee yow da ngay bàyyi sa magasin bàyyi sa siège ba sa kër nga xëy xëy ay sàmba booy jógee lay ñëw. sakkase ko nu mu leen neexee taal ko toj ko def leen nu mu neexee kenn xamul bu doon dara bu doon dara sax kenn xamul kan moo def ay enquête ba xam ñan la ñun kan moo ñuy aar te bëkki de moom yàlla ñu jox ay images yu ne ñu si rond point Padois bi ay malfaiteurs ay agresseurs doon dogaale ay sénégalais yu doon jàll. cest à loolu aussi dafa war ñu ubbi suñu bopp au delà des politiques ñu jëm ubbi suñu bopp que nous sommes en danger dëkk bi amuñu sécurité bu ñu waree mais li xew nii nag man man au delà de ça soxna man yi xew nii dara bettuma si parce que man nee naa la ak waa passif man daamaa conscience ku ma yàgg déglu dégg ma dégg yàgg naa ko wax amul lu may bett si ñoom lu ma dégg dama ko préparé wu et puis li gën a doy waar mooy pour montrer rek que y a bi xew gis nga li Abass Fall wax waaye léegi méngale ko ak lii nga xamante Birame Souleye waxoon ba muy nekk si opposition jamonoy Macky Sall si vidéo ba pourtant moom génn na jéggalu daal dañ ko jëli ji li nga xamante ne moom la nit dof waxoon defoon ab laayefam saaga sénégalais yu bëree bëri si ñoom laayefam pourtant génnoon na jéggalu na waaye dañ koo jëli ji déggoo ma de waaye léegi Abbas Fall génn na am na ñu naan jéggalu na waaye léegi du tax jëli jiwuñ ko. mais le coup est déjà parti. waaw non non non non non je sais mais je vous je vous montre xoolal ni balancement pouvoir yi di balancer woo loolu laa la bëgg a wan li bu set soo wax dëgg la. est-ce que bu fi Macky Sall nekkoon Abbas Fall waxoon wax ji waxam bii kon léegi sénégalais yi léegi ñu ñooy xamante ne cest à ñun bu ñu faloo ñoo moom li ñu moom bu ñu folee ko moomatuñu dara waaye léegi la moo tax ñu doon xeex ndax dañ doon xeex pour un Sénégal ma bokk si ñi nga xamante ne lu leen neex wax kenn du ma jël si wala ma bokk si Sénégal boo xamante ne man su ma folee naa xam sama bopp. ñun loolu taxul ñu xeex. te d'ailleurs que Abbas Fall porté na plainte benn xale. voilà ñun loolu tax loolu taxul woon ñuy xeex. ngir ngir cinq milliards loolu taxul ñuy xeex ñuy xeex. c'est-à-dire sénégalais yi man man Fatoumata monsieur Sow man sama combat ñi may duglu xam nañ ne man sama combat nekku si ay parti politique man sama combat Sénégal la. ñun ñoo war a toog xam ne Sénégal comme ni nga ko waxee en France da nga gis un français mu bëgg France nga gis un allemand mu gëm Allemagne. mooy ni ñu gëm Sénégal na ñu gëm Sénégal mooy ñun nañuy xeexal yoon na ñuy xeexal dëgg na ñuy nekk dans la vérité des faits te bu ñu pousse di bokk ay partisanerie ma ne pourtant ay jëmmi jamono am na benn député boo xamante ne xaw ma monsieur Dembourou Sow waaye léegi méngale ko la mu fa waxoon ak li nga xamante ne moom la ci wax te pourtant te pourtant pourtant pourtant waaw